bu yalla dogalé sama jëm ji bay social bu dé mo gën ci man dina ko def parce que xam lu tax ngi subir yo xamanteni ni du yëpp sax ñoy gën ci télé bi du yëpp lay mëna ci internet bi. bi imam perdre contrôle tudd yalla ma xamni tay mom bis bi mom bis bi moo ñu doon xaar tay waye ma ànd ak sama tawhid tek di jël sama loxo bi la tek imam jël sama loxo bi braqué direction bi ba direction bi sës ma téye ko foofu bi mu ko mbëkkee nag sama tank bi nga xamante ne moom lañ opéré woon ba am ba mu am ay fer sama tank bi moo dal ci tableau de bord bi bi mu nee rëll ci tableau de bord bi sama àdduna yëpp a tukki parce que xam naa ni gaañuwaat naa te kii njëkk am lu ko metti moo di madame Seck ma lay ñaan rek nga nangul yàlla xam ne dëgëruma de damaa munta toog billaay lazi laa ilaha illallah dëgëruma bopp mais li may dund di ko gis su ma demul sax nit ñi ñoo may fekk si billaay lazi laa ilaha illallah damaa ñaan yàlla ma ni yàlla maa ngi lay ñaan oto bi bu ci kenn naree ñàkk bakkanam yàlla na nga ko teg ci sama kaw ma gis imam daa di wàcc ma gis Seydina alin daa di wàcc ma gis euh, kii Sadio daa di wàcc man mënumaa wàcc ma juk juk juk majuk, maa ma xamne sama tank bi yakuna na aduna heli wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni daretuna futti fuyni mm-hmm, won heɓe woyoɓe kono Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah mbokki ami internet yi baye xel liggéey yalla bi muy jaamu yalla ci jaamu yalla yi comme niko Baye pap di amale fépp ci Senegal. tay Baye Sawru di fi nuyoo fii ci diwanu Mbour ci makkaanu Baye pap Niang ci natt bu nga xamanteni sama borom tegati nako ci jëmmam ji mom Baye pap Niang muy accident bi nga xamanteni amalon nako ci jamono beul ci ci ben tank bi bañu am Baye pap mi ngi tàmbali di am tawféex ba mu waa bàyyi woon bekke bi commencé di dox ci tànk bi waaye yàggul dara mu mel ni ci semaine bii ñu génn suñu borom tegaat na Baye Pape Niang beneen nattu boo xamante ni dalati na ci kawam dalati ci kaw tànk boobu nattu boobu lan mooy sabab bi lan moo ko waral lan la Baye Pape jugoon doxi ba nattu boobu fekk ko ci dañu koy laaj ki nga xamante ni moo di Baye Pape ngir ñu baaxe ko ñi nga xamante ñoo di ami internet yi ginnaaw bi ñu ko masawoo ci natt bi nga xamante ni dalati na ci kaw Baye Pape maa leen maa ngi lay fay Baye Sawru Baye mu mel ni ci jamono bi ma toog fii ci sa makkaan tànk bi ma gis ni tabaxaat nañu ko ndax mën nga ñëw ak ñun ci lan mooy sabab bi tax tank bi dal ñu tabaxaat ko Baye Sawru maa ngi nuyu ñi nga xamante ñu ngi seetaan ñëpp di len sant di kontan bu baakha baax ci ñom ma ngi lu tamit ñew bi nga déplacer wu Dakar bumbur Mbour sorina na nga ñew tok ngir jàkkaarloog amee internet yi ngir ñu xamni rek papnya batay gënagul ci jafe jafé yi nga xamanteni ci la nekkon du sax man ma nekk ci ay jafe-jafe waye ñi nga xamanteni ni dama leen di jëlé fu nekk ci Sénégal andi leen ci sama kër di leen faj di leen accompagner di leen yóbbu hôpital di leen yóbbu ci fuma ma ni buma ma fa demee ñu wér rek ma di leen fa yóbbu ngir am yaakaar bu am ci yàlla wax dëgg ay bu ki muy dal rek mooy nangul yalla ni nattu yee jeexagul te natt bii nga xamante ni dalaati na ci sama kaw wallaay du natt buma ma lu ndax lima dund ci metit man rek mako xam lima dund ci sama accident bu njëkk bi ba yalla dogal ma dem Maroc ñu defal ma fa ñetti opération ba ma ñibisi ñu di ma suivre ba tank bi wër ba sama médecin jox ma ndigal ni ma légui na tek béké yi tay dox ak tank bi wax deug yalla yaakaaroon na ni accident mom, wala metitu tank mom jeex na ci sama dundu ndax metit bi nga xamanteni moma dalon février ba mois de août mu jàppoon na ni jeex na ci man waye nak lima dal bay Sewru dafa metti metti na ba ci kanamu yalla waye damay nangul yalla rek ni yalla rek moy tegaté konu nattu yi te mbollem luma dal yalla momako tek leg leg sax nit woma ma ni ma pap ñaa ni waw mu ma malade yi nga yóbbu sa kër gennel len ñu dem ci seeni mbokk mané ko lutax mune ma malade yoy nga indi sen sa keur dina ci am ño xamanteni daño am ay andon yu bono bon yo xamanteni ñom lañ andal ta da ngay juk ngir fajj sabut sa bo jugee ni yaangi len di fajj ñoñu dinañ la déclarer guerre te luñu mën ci yow dinañ ko def ngir gal la mané len buñ amé katan ba yegg ci man rek dafa fekk ni yalla mo len ndax sun borom mo ni la wala quwwata illa billahi alil azim Jam amul katan, jam amul njariñ jam ta lor waaye xanaa yalla rek kon lépp lu yëgsi ci man rek dafa fekk ni loolu yàllaa ko kattanal ba mu yëgsi ci man waaye bu ma yàlla aaroon kaaraange gi nga xamante ni la aaree asamaan si ba daanuwul sunu kaw aaree ko suuf si ba ci sunu kaw aaree ko ndoxam mi ba musu musuñu ko musuta saf suukar gëm naa ni bu ma yàlla kon nyomdu duñ mën ci man dara ma daal di toog ci ngëm gi ma gëm rek nit déplacé wu fu sori ñëw indi ay sangat indi ay ñaan indi ay tour indi yoy non yep indi bu ñewé dama nan ko defal ko malade yi waye man mom bàyyi mag ni rek ak sa borom ndem kep ko dem mu di ko ñaanal ma fay jël loxom talal ko borom boromam ngir mu ñaanal ko waye dama japp ni rek ay namelu yalla sun borom ak ay natu li lepp ay ay ay jéggi ay maqaama la yo xamanteni mu may jural ay yokute ci sama bir xol ndax natu bi may dal ma di ko li ma dund ci metit billahi lazi laa ilaha illallah ku ma waxoon ni dinaa yëgsiwaat ci beneen dundaat ci metit loolu duma ko gëm ba adun abadan dama xam ne lii yàlla rek a ko mën accident bi nag jàpp naa ne lu mënoon a ñàkk la waaye jàpp naa ne lu war a am la ndax ki ko dogal du kenn ku dul yàlla dama tabax kër silmaxa yi ba mu noppi ma dem fa ngir def dernière vidéo pour annoncer sénégalais yi ni kër gi ma doon tabaxal silmaxa yi yàlla dimbali na ma pare na jàpp nañu date bi ñu ko war a sanc muy le 6 octobre bis boobu laa jàpp ni moom laa war a sancal silmaxa yi ba may waaj a dem sama oto daa panne nekk garage li ko yàggal sax mooy sama mécanicien Ousmane lum magam bu bokkal ndey ak baay moo génn àdduna ma di ko jaale de passage bi nga xamante ne loolu am na ma préparé wu pour dem daa di jokkook imaam Abu Jandal nekk nit ku baax te social ku bari yërmande te mën a dimbali jaam koo xam ne day bàyyi ay daaraam ngir taxaw ci aajooy doomu aadama yi ngir ñu taxawu leen te yàlla rek tax ma koy nuyu moom imaam Abu Jandal bi nga xamante ne loolu am na ma jokkook moom téléphone mu ni ma pap ma ne ko mu ni ma lool day dañ koo war a yaatal ngir lan soci Sénégal xam ni social amatina ndam ndax li nga defal silmaxa yi néew na kuy dajale ay dërëm ba tabax kër bu ame ci Sénégal benn doni ñaar ma kolegi ko léegi luye naa oto borom auto bi waxtaan naa ak moom ba mu d'accord ci trente mille nañ dem pap man sama auto ngi fi est-ce que dooñ jël sama oto nga sol ci essence su ko defee ñu dem ma ko ah loolu de moo ma gënal ndax oto yi sax mën ngaa dem ñu lay xaarloo tuuti di sonal ak imam même pas trente minutes imam dawal auto ñëw fi ci kër gi ñu barkelu ba imaam ñu dem ci oto bi mu yëkkati caabi otoom jox ma ni ma pap dawalal ndax damaa am ay ay damaa am ay ay wérd yu may wérd ma ne ko alhamdulilah comme d'habitude rek ndax dawal naa fii man ak moom ñu dem ba Casamance ci xale boobu amoon tànk bu metti bi bi ñu génnee mu jox ma caabi oto ma dawal bi ma dawalee ñu dem ba Tiwaawoon yàlla dimbali ñu ñu def li ñuy def vidéo beeg yëpp ba dara desul lu dul ñibbisi bi ñuy ñibbisi ñëw nañ ba ba. ñëw nañ ba dugg ci autoroute à péage yu Thiès bi ilaa Touba bi pour jóge Thiès dellu si Dakar boo ñëwee am na benn montagne boo xam ne dañ ko xar ci booy mooy montagne yu Thiès bi rek chauffeur yëpp xam nañ ko bi ñuy ñëw ba foofu imaam mi ngi dawal imam di génn troisième position boobu nag moom imaam gisul woon oto bi nga xamante ni moo ñu jiitu xamul woon ni da doon double beneen oto moom dafa jàppoon ni rek waa ji moo moo moo génn génn maa tey léegi moom daf ko war a génn pa daf ko war a génn léegi bi nga xamante ni imam mi ngi dugg ci diggante boobu di daw cent vingt kilomètres à l'heure ci laa ni ko imam teggil sa tànk imam imam teggil sa tànk ni ngay dawalee ni kiiwul teggil sa tànk noonu nag bi nga xamante ni imam dugg na ba pare mënatul woon freiner pour maanaam pour man bàyyi oto boobu mu dem ci la forcé bi mu forcé ba génn oto boobu rek ci la perte contrôle imam dafa perte contrôle carrément boobu oto bi maa ngi ci ak Seydina Aline ak euh, ki nga xam ne mooy euh, Sadio ñun ñun ñent ñoo nek ci auto bi bi imam perdre contrôle tudd yalla ma xamni tay mom bis bi mom bis bi mo ñu doon xaar tay waye ma ànd ak sama tawhid daal di jël sama loxo bi la tek imam jël sama loxo bi braqué direction bi ba direction bi sës ma teyé ko fofu bi ma ko teyé fofu noonu auto bi di tourner nak ci kaw tali bi bo auto bay daw 120 km kilomètres à l'heure oto bi di tourner di tourner di tourner di tourner tourner na tourner ba egg fi nga xamanteni suma suma delo direction bi ba mu sës oto bi day këpp parce que boobu tooguma ci pédale frein bo xamanteni meuna mën auto bi ba dëj ko tooguma won fofu su fekkone ni fofu la tok dina redégrader auto bi ba dëj ko ta duma laal frein mais tooguma won fofu lenn la meun moy delo ci direction bi ba auto bi xawa a ma delo wat ko out fu mu dal parce que fofu non suma ma xëccoowul woon ak imam direction bi barki laa ilaha illallah kon tey jii saraxal nañu ba noppi parce que oto fi mu jëmoon dama koo gis da doon wàcc tali bi dugg ci montagne bi te bu duggee ci montagne bi dañuy dañuy dañuy entrer en collision boo xamante nii du luñ mën a nettali waaye ma téye ko ak sama contrôle ñi nekkoon ci oto bi yëpp kenn nekkatu ji kenn xamatul foo nekk ndax ni oto bi doon rouler rouler bi nag nekkul oto bi dafa dëpp di di wëlbatiku nii de mais da doon déraper nii parce que dama braqué direction bi ba mu sës ma téye ko oto bi di déraper ni comme gaay yi nga gis ay ñuy fooyee sen oto di ko déraper bi non la doon def mukul fenn mukul fenn ba bima ma direction bi xamni suma bayé ma bi mëna kepp dama ko braqué wat bima ko braqué waté rek ci le mbeuk barrière barrière ki bi barrière borne yi nga xamanteni mo séparé ñaari voie yi bimu ko mbeuké nak sama tank bi nga xamanteni mom lañ opéré won ba am ba mu am ay fer sama tank bi mo dal ci tableau de bord bi bimu ni reul ci tableau de bord bi sama àdduna yëpp a tukki parce que xam naa ni gaañuwaat naa parce que tànk bi dèjà wérul à cent pour cent waaye ma dellu siwaat soog bii ni amaat kon xam naa ni dina am ñoo xam ni dinañ am lu leen metti te kii njëkk am lu ko metti moo di madame Seck ma lay ñaan rek nga nangul yàlla xam ne dëgëruma bopp de damaa mun ta toog billaay lazi laa ilaha illallah dëgëruma bopp mais li may dund di ko gis su ma demul sax nit ñi ñoo may fekk si di wax ni li nga def ci man yàqoo ko dafa fekk ni nattu yee jeexagul rek moo tax yàlla jëlaat nattu yi teg ko ci sama kaw gis nga oto bi bi oto bi bi mu commencé rouler ba ma jël direction bi daal di koy baraake téye billaay lazi laa ilaha illallah damaa ñaan yàlla ma ni yàlla maa ngi lay ñaan oto bi bu ci kenn naree ñàkk bakkanam yàlla na nga ko teg ci sama kaw bu ci kenn naree loru yàlla naa ci loru sàmmal ma leen ba bu ci kenn loru billahi lazi laa ilaha illallah te boobu ñu ngi nekk ci diggante dund ak dee nag ndax xamuñu oto bi ñu ngi dérapé waaye xamuñu fan la oto bi di dal moo tax bi oto bi dalee ma gis imam daa di wàcc ma gis Seydina alin daa di wàcc ma gis euh, kii Sadio daa di wàcc man mënumaa wàcc ma jug jug jug mënumaa jóg ma xam ne sama tànk bi yàqu na sama tànk bi damaat na noonu ci lañ toog lu yàgg rek di woo chapeur ci la waa garage clando tali bu xonq ndeysaan ñoom ancien daal di ñëw yam ci fekk ñu jóge woon benn xew ñëw ñeewantal ma lool ni pap pourtant wéragul woon tànk bii lañ opéré woon ak mbagg bii nii mu tëddaat nii ci accident bi ñu gis accident bi wax dëgg yàlla dem fiñ fiñ fi ñu doon dem ñu ànd ak ñeewantal ci sama jëmm ji yaakaar naa sax ñoom ñoo la woo noonu chapeur ñëw jël ma yóbbu hôpital hôpital euh, hôpital régional bu cees bañ ma fa yóbboo nag sonn naa coono boo xam ni parce que man sama fit tiituma sax mais li ma doon ragal mooy sama tànk bi fi ñu feere tànk bi damaat ma xam ni foofu bu damaatee ndax médecin bi ma doon opéré Maroc nee woon na ma na nga def ci sa bopp ndax tànk bii damm na ñu opéré ko feere ko mu damaat ñu opéré waat ko feere ko su damaatee kenn dootu ko mën a defar tànk bi dañ koy amputé foofu nag loolu laa doon xalaat mani ban buma yalla yàlla ma am ben tank est-ce dina dinaa ne a joteeti néew ba dimbali lol nek nak ci sama sama xol bi nga xamanteni taxawu nga ma bay sawru ndax bi ko yëgee rek da nga tal sa auto ñew ta bobu ya nga jógee Touba ci guddi mam Cheikh rafal gi munoon nga wax dama sonu munoon nga wax nañ bay bu suba munon nga wax yobu len ko hôpital mais danga lool da nga wane ni sa grand frère mom mo nek ci ay jafe-jafe nga tal sa auto ci guddi gi nga ñew chauffeur ba mu ma yóbboo fi mu doon wiiree ci péage bi moo sori mais yow da ngaa taal sa oto yaa ñu jiitu hôpital ba ñu yegg see hôpital lépp lu fay taxawaayu ndey ak baay def nga ko ba mat sëkk sama dërëm ñàkkuma ko ci hôpital bi te mbooleem liñ ma fa defal cher na mais bi ñu ma defalee foofu dañ ne ma léegi bu ma ñëwee dakaar bu ma ñëwee Mbour naa defaat beneen rajo contrôle démb ci laa xëy ñoom tabaxoon nañ ko ma dem ñu defal ma rajo contrôle bi ma defee rajo contrôle ma dem clinique Maguette biñ ko bi ñu xoolee rajo contrôle ci lañ ma ne effectivement tànk bi dafa damm ma ne leen fan la dammee ñu ni ma dammeewul fi nga xamante ni moom lañ feere woon waaye fi mu dammee mooy ci ginnaaw ci ci ginnaaw yax bi yax boobu damoon ci ginnaawam foofu la dammee te damm bi sax nekkul damm boo xamante ni dafa am double fracture nekkul double fracture mais yax bi dafa damm xam naa soog bi ni ni tànk bi dalee ci tableau de bord bi moom moo tax mu mu damm mais damm bi génnul à cent pour cent moo looloo tax ñu tabax ko nii ni ma tabax bi su ma ci toogee quinze jours naa ñëw dindi ko ñu def ko ñu kii ko xaw ma nuñ koy waxee euh, am na nuñ koy waxee daal nee lii ci kaw nii dañ koy dindi pour tànk bi mën a noyyi ndax feer yi nekk ci biir moom moo tax lii mooy li nga xamante ni moom moo indi accident bi mais li may ñaan mooy bépp chauffeur bu mu mënti doon téléphone wala dawale benn benn loxo ñaan naa leen ko ndax ndox fu muy ñëwee doo ko xam de te bu la fekkee ngay dawale benn loxo mën ngaa loru lor ñi nga àndal nañu respecter suñu direction nañu jël téléphone yu teg ko ci suuf mbaa ñu ut rajo yoo xamante ni day commune day connecté ak téléphone bi ba duñ mën a jël téléphone di téléphoner à chaque fois man dama ko doon def keneen ak keneen da ko daan def waaye bis ni ki tey ñaan naa leen nañ ko arrêté ndax li lay gaañ soo ko doon gis kon du fatt sa bët mukk waaye accident bi nga xamante ni dal nañu ci yoonu Thiès Baye Sawru ah yàllaa ñu suturaal yàlla ñu dimbali waaye billaay lazi laa ilaha laa dañ doon faatu ñu ci profité ni ñu ko masawoo noonu la ñuy masawoo imaam Abu Jandal ci otom bi nga xam ne wax dëgg yàlla yàqu-yàqu yi bari na te dara sababu ko loolu rek demoon di woyafalal baay pap liggéeyu yàlla bu mu liggéeyoon ba war ko woon ami internet yi mm-hmm. kon nag imaam ñu ngi lay masaw bu baax a baax ni ko baay pap waxee léegi nii dolliwaat santaat yàlla fi mu defee soog ku ko xam ku nekk boo laajee waa péage bi keroog ba ma yeggee fekk fa oto imaam Abu Jandal bi mu taxaw ak imaam ak ñi nekkoon ci péage bi la plupart ku miin barab boobu xam ni néew na lu fa soog di am te bakkan rotu néew na ndax diggante boobu ñu ko xam dëgg sax ñi nga wax ne dafa am rawaan boo xamante ni kon ñoo ngi wax chauffeur yi képp ku ci toll ci diggante boobu rek na nga bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko Baye Pape waxee waaye Baye Pape mu mel ni am na ay yóbbante yoo xam ne nag yegg si na ci man ginnaaw barki démb bi xew-xew bi amee ñenn ci ñu ko jot a yëg ñu ngi naan est-ce que Baye Pape du bàyyi social loolu nag biñ ma ko waxee nee naa diis na trop ci ma wax ko Baye Pape waaye ginnaaw yóbbante la wax dëgg yàlla ginnaaw ndimbal li nag loraange yi ci sa jëmm ji moo ci ëpp tey lan ngay tontu ñi nga xamante ne ñooy wax ne est-ce que Baye Pape jotul mu bàyyi social ngir dallu ngir njabootam soxla nañu ko. ah Baye Sawru man moom wax dëgg yàlla bu yàlla dogalee sama jëmm ji bàyyi social bu dee moo gën ci man dinaa ko def. parce que xam lu tax ngi subir yo xamanteni ni du yep sax ñoy genn ci télé bi du yep lay mëna ci internet bi lima ci dundu lu ëpp du sax lumay wax barki sayyidna mohammed bay sa du na fi ba xaju guddi fatt naa fi ba dama juk taxaw bima ma ba juk taxaw lama diké tuma man sama bop fatna lu tolok 2 minutes yo xamanteni sama soxna daf ni ma dafa melni ni sa bët yi daa génn ma delu ci wat tok tuddu yalla na ben way ju bax borom xam-xam ni ma pap ma ko waaw mu ni ma dina ñew taxaw la dem yi ñing sa kaw ma ko dëmm yi day man bu ñewé sama kaw mom lu ñuy jël ci ci man mu ni ma dem du kuy lek yap mais dem moy nitu guddi te nitu guddi bu la topé fi ak sa bakkan bi rotul du teggi tànk mukk parce que sa bakkan bi force bi la yalla jox yermande ji la yalla jox capacité bi la yalla jox nga meuna am yermande di dem di dimbali doomu adama yi mom lool la soxla pour meuna am pouvoir force pour meuna nek, lool la soxla pour wae nek waye lola, mom la soxla na ñew laaj makoy rek ci ci nam mu ko bëggee ndax ñun paré nañ pour sacrifier suñu dundu ngir dimbali doomu adama yi te billahi la ilaha illallah comme ni ko rek liggéey bi yàlla lay soob mu xëy rek dagg sama ñaari tànk dagg sama ñaari loxo mënatuma dem uti kenn su boobaa ma toog te xam naa ne fu ma toog jaam ñi dinañ ma fa fekk donte ni maa suma làmmiñ dinaa wax pour ñu dimbali leen te yàlla tax. dinaa wax ngir ñu dimbali leen te yàlla rek tax keroog bi nga xamante ni mbir bi am na ñu jëlee la hôpital indi la fii ci kër gi mu nekkoon xaaju guddi fekk waa kër gi dallu bi bët setee malade yi nga xamante ni yaa ngi leen jëlee fu nekk ci Sénégal andi leen ñu nekk fii ci sa kër am yaakaar ci sa jëmm bu ñu lay gis ngay dox seeni xel di dal bokk na ci xale bi nga xamante ni bi way juróom bi di def sog moom dafa nekkoon ci oto juróom bi wuy ji boromam burki démboo njaare nga def ci moom vidéo di ko taxaw ak yeneen malade yi nga xamante ni ñoo ngi fi jóge ci dëkk bu nekk ngir am yaakaar ci yow ba tax ñu ñëw fi nga jël leen indi leen seen kër di la taxaw keroog ñoom bi ñu la gisee naka lañ def jaaxle rek dan maa jooyloo sax Penda Fall mii dafa ma jooyloo parce que la ci lan la ma jooyloo mooy euh, bi ma ñëwee ci guddi gi boobu dafa nelaw mais bi ma yeewoo ci suba gi comme d'habitude saa bu yeewoo yaayam day ñëw sukk nuyu ma dem Penda daal di raam ñëw nuyu ma ma gis Penda toog ci fauteuil roulant bi ñëw ba ci néeg bi mais ñeewantal na maa nuyu ma ni ndeysaan ñoom tey ñu gëm naan dinañ perdre espoir mais barki Seydina Muhammad donte ni damay nekk fii di xiif ak ñoom dinaa fi nekk di xiifandoog ñoom ba keroog yàlla di ma may wér mais bu dee yàlla mi ngi may may kattan du ma am dara bàyyi leen il faut ma taxawu leen ndax yéene bi ma am ci Penda mooy mu dox te instant bii nii ñu ngi am yaakaar yóbbu naa ko ci koo xamante ni mu ngi koy traité ba lim ñu digal ñu ngi koy def ba xale bi mi ngi commencé sentir tànk yi te gëm naa ni loolu ma tàmbali noonu fi ma toog nii di wax ak yow barki laa ila sama tànk baa ngi tëgg ay mbalax sama tànk baa ngi métti métti boo xamante ni yaakaaroon naa ni lii keroog ba ñu opéré lay yem mais ay nattu la lii ay dogal la lii du cat lii du bët lii du làmmiñ lii du bët bu ñaaw lii ndogalu yàlla la moo wàcc ci kaw jaamub yàlla am na keneen ku ndogal bu gën a piir lii ma dal dal te mën nga ko gëm nangu ni yàllaa ko ko teg kon mbooleem yi nga xamante ni ñu ngi koy wax naam mën naa nekk dëgg mais man li ma gëm mooy yàlla moo ma ko teg té lu yalla namm ci sama jëm ji mom amna possibilité def lu ko neex ba tay nima ko gëmé won la koy gëmé nima ko bëggé won la koy bëggé nima ko daan tuddé lay kon ne di tuddé waye li nga xamanteni mom lay talal yalla yàlla sama loxo di ñaan moy mbolém ñi nga xamni indi na leen ci kër gi fi ñu yaakar taxaway buma leen di taxaw yalla bu ci kenn xif yalla bu ci kenn fande yalla bu ci kenn ñak lu mu démé hôpital yalla bu ci kenn ñak lu mako taxawoo lol lay ñaan yalla ndax lol mo nek sama xol bàyyi sew ci dami mebeut bi taxone nga demone ci Tiwaawan moy sancal keur silma xey ginnaw bi natt bi amé ndax sanc bobu day continuer di am le 6 waaw sanc bi day continuer di am bàyyi sewru donte ne dañuy tok ci fauteuil roulant dem danañ dem sancal len parce que munu ñu leena ñak baña a parce que amatuuma gardien bi nek ci keur gi ci wawon 100000 francs la koy fay par weer keur gi ma len luyel 125000 lay fay par weer léegi ma ngi teud lol non yeb bu war a teguwaatee ci sama kaw man xaw ma fan laa jëm te man du ci daw saala yaay ndeer lu tax mooy yàlla moo am mission bu mu teg ci man ma di ko liggéey mission boobu day mat rek mbaa ma dellu ci yàlla mais fii mission boobu matul duma dellu ci yàlla kon mission boobu noonu dama koy eggale ba keroog mu yegg léegi nag li nga xamante ni moo ci am mooy silmaxa yi le 6 boobu jàpp nañ ko te incha allahu rabbul alamin même su ma mënul dem sancal leen dinaa jël kayitu kër gi teg ko ci sa loxo jël caabi kër gi teg ko ci sa loxo gan bu ñëwee ngeen dalal leen te gëm naa ni donte gëm na ni lool di ko def waye dina ñew assister ko ngir jébbal leen seen ciabi kër Baye sawur il faut lool moom ma def ko mom sa kàddu gu muju nga tagato ak ñinga xamanteni di am internet di lan moy sey bëgg-bëgg ak lan nga bëgg ci jaamu yalla yi ak lan ngay wax ñinga xamanteni ni ñoo lay seetaan muy am internet di bo noppé nak nga tëj ñu ñaanal ñepp jàmm te koy sàkku ci ñom sama kàddu dal moy kàddu gu fort ci sama xol muy sama mak soxna nday Fatou Diop Greensboro North Carolina mi nga xamante ni magam bu góor bu mbokkal bokkal ndey ak baay di Ibrahima jóob dafa génn àdduna ma amoon yéene dem fa ci altine bi waaye accident bee tax dew ma fa ma di la ko jaale mag sama di ñaan saraxam yal na yàgg ci sa loxo yàlla na dee di noflaayam waaye Ibrahima yàlla na ko yàlla xare aljana njabootam gim fi bàyyi yàlla na leen yàlla teg loxo sama sama li may li ma bëgg njëkk mooy ku ko mën mu ñaanalal ma Ayda Njaay mu wér ba dellu ci ak njabootam ñaanalal ma Penda ma am ci ndam ba mu doxaat ak ay tànkam ñaanalal ma Njole Juuf mu wér ba delluwaat ci ay mbokkam bëgg-bëgg bi ma bëgg mooy ñu ñaanalal ma leen ñu wér beneen bi ci topp mooy bëgg naa ñu jàppale imam Abu Jandal ci otoom boobu ndax oto ba yàqu na te képp ku ko mën maa ngi lay ñaan ci kattanu yàlla ak mbaaxam nga jàppaleel ma imaam Abu Jandal ndax otoom boobu man la yóbbu woon ba ndog-ndog bii am ci man ma gaañu ci waaye moom otoom yàqu ma ñaan leen képp ku ko mën jàppale imaam Abu Jandal ba mu defar otoom ku am oto boo ko may sax nga may ko ko te yàlla rek tax man loolu mooy li nga xamante ni moom laa bëgg li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg bu mujj bi mooy ku ko mën te am yéene ci man te mën maa jàppale te yàlla rek tax ngir ma eggale sama yéene ci sama malade yii nañ ma ko defal te yàlla rek tax te ñaanal ma it yàlla may ma wér te nattu yi bu gënee yàlla na bari bu gënul nag yàlla ko yàlla suñu borom teggi wax dëgg yàlla metti na waaye ñu sante ko yàlla bàyyi sawro metti na waaye ñu sant ko yàlla suñu borom kon nag foofu la ñuy wàccee kàddu yi waaye ci samay kàddu yu bopp maa ngi woo ami internet yëpp yi nga xamante ni lu bàyyi pap mës a nekk rek nekk nañ ci ngir ñu jàppale ko te yàlla rek tax dañuy bañ gu vidéo bi gudd waaye sinon kon ma duggook moom ci malaat yi nga xamante ni ñoo nekk ci hôpital yi tëdd fa kenn ku ci nekk fa nga jóge ragal naa ni malaat yooyu su ñu gisee vidéo bi seen xel dootul dal waaye ñu dalal seen xel képp koo xamante ne ami internet nga wala bon volonté te am yéene ci yàlla am yéene ci Baye Pape ci liggéey bi muy liggéeyal yàlla rawatina ci malade nekk fii ci këram ak malade yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi ñu jàpp ci te yàlla rek tax ngir mu mën di toog fii ordonnance bu ñu woote ci hôpital yi mu mën kaa yónnee fay analyse yi noonu rajo yi noonu waaye dund ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci këram fii di malade yi gis ngeen Baye pap ni mu ko waxee ci ngor gi nee na bu ma kenn jàppale ci dara waaye nañu ma jàppaleel malade yi nga xamante ni ñoo am yaakaar ci yàlla te bu leen jëlee indi leen fii du moom moo am lu leen yore wala mu man ko waaye grâce à yéen ñi nga xamante ni yéen a koy teg loxo ba ñoom ñi kenn ku ci nekk tey xelu ay waajuram commencé naa dal ndax biñ leen fii indi beneen anam lañ nekkoon waaye tey alhamdulilah ba ci ki nga xamante ni mooy penda sànq rek bi ma fi ñëwee nañ ma donte ni doxul waaye commencé naa mën a taxaw kon commencé naa mën lu mu mënul woon mi ngi doon am yaakaar di am espoir damay ragal ne bu gisee bàyyi pap tëdd est-ce que du découragé waaye li muy na yàlla ndimbal ak yërmande jëm ci taxawu Baye Pape ña ci malaatam te yàlla rek tax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf